ndeysaan arbi bi sifflé na Bébé Gouy Gui ak mu ne ko Pokola <laughs> Bébé Gouy Gui tokkas na ndeysaan mu ngi koy déglu ndeysaan Bébé Gouy Gui ak Pokola ndeysaan Pokola dem na Ardo ñëwaat ndeysaan Pokola dem na Ardo ñëwaat Pokola dem na Ardo ñëwaat ñu ngi ñaar Bébé Gouy Gui ak Pokola ndaysaan Bébé Gouy Gui ak sarax bi bari na marle combat sarax si bari na ndaysaan Bébé Gouy ak Pokola ndaysaan ngay saraxe Ndeysaan bébé guy gi ak Pokola ñoom ñaari xale yi ñu ngi noonu ndege ñeente ba tey Ndeysaan bébé guy gi Pokola Ndeysaan bébé guy gi daa tëj xeex bi Pokola day ñëw Pokola day xeex si bébé guy gi jël na ko maa la waxoon day xeex yàgg yàgg xamul nu muy def day xeex Pokola daa bàyyi ni ko ñëpp xamee woon ndeysaan génn nañ saaku yi est-ce que Pokola du jël avertissement jël quatre avertissement Pokola bu amee cinq avertissement dañ koy disqualifié day ñàkk combat bi arbitre bi sifflé guy gi Gouy Gui da ko yóbbu ba saaku yi génnee ko loolu la bëgg da yóbbu ba ci saako yi génnee ko ndeysaan gis nga mu ngi koy yóbbu ñoom ñaar combat bi mbaa mujj ndeysaan ñoom ñaar ku ci négligé tuuti ñu disqualifié la bébé guy gi pokala ndaysaan bébé guy gi pokola wàccee na gàrd bi ndaysaan bébé guy gi pokola Ouzin noo gisee combat bi baa ji li bi yàgg na mais xale yi fi mu toll nii dañuy dem yee fi toll nii dañuy dem yee ndax boo xoolee kii di pokola moo ci quatre avertissement fi mu toll nii kii di guy gi ñu mu toon dafa war a gérer temps rek bu ko gérer amaana bu génnaatee sax bu ñëwee ñu jox ko ndam moo tax fi mu toon combat calcul la boo xoolee day day day cokkaas taxaw di xaar Pokola def erreur mu juumloo ko daan ko bàyyi ji li. Pokola nii la waroon bëree combat non non ndox du bàyyi yoonu bàyyi ji li Pokola ñëpp xamee nañ ko bëri ak xeex mais des fois xale dañuy ñëw ba ci biir di bàyyante xel woo ko woon bàyyi xel dafa war a ñëw rek appliquer li nga xamante ni moom la yàgg def di ci am ndam bu ko defee rek yàlla mën na dogal mu am ci mais dafa ñëw. sóoraale ki nga xamante ne mooy guy gi ba combat bi yegg fii fi mu nag li li ko war mooy mu gérer ko am defet wala mu profité bëre bu ko yàlla may ndam mu xam ne noonu la su temps bi jeexee fii wala su génnaatee dañuy jox ki nga xamante ne mooy guy gi victoire bi bàyyi ji leen. ñaari xale yaa ngi ci combat bi ba tey ndox ci diggante Pokola ak bébé guy gi ndaysaan Pokola bébé guy gi ñoom ñaari xale yaa ngi noonu. Ndeysaan Pokola Bébé guy gi Bébé Gouy Gui dóoraat na dóor na Bébé Gouy Gui mu ngi dóor Bébé Gouy Gui mu ngi dóor Ndeysaan Bébé Gouy Gui mu ngi dóor Ndeysaan Bébé guy gi mu ngi dóor hypercule déet waay est-ce que xam koy daan daan na ko. Bébé Gouy daan na Pokola. Bébé Gouy Gui daan na ko. Bébé Gouy Gui daan na ko aywa ah, la muy def xoolal fecc wa waaye Bébé Gouy daan na xoolal Eumeu Adama Adama Eumeu Sène kontaan na Eumeu Sène daw Eumeu mu ngi daw. doomam la ndeysaan doomam la ndeysaan doomam la ndeysaan doomam la ndeysaan doomam la ndeysaan doomam daan na ndeysaan doomam daan na doomam la doomam la ndeysaan oh. doomam daan na ay sa yaram daw na waay